cabinet borom njurul cabinet borom njurul ñu fay seen boroom jamono di Serigne Saliou Mbacke xam-xamam màcc lool si fajum cosaan waaw waaw Serigne bi ñu ni ko tey foo génn génnati mënuñu xanaa médicament boroom njurul yamuk lool tolluwaay jamono dara doxatul si néegu sëy naxtale doole góor la yokk di ko yokk ndoxum siti hémorroïde ballonnement diabète tension da koy faj ma ne ko wàllum bët nag mu ni ma aw ma si moroom waaye it perte blanche dama ko mën infection prostate sinusite ak règle douloureuse faj rek dong kase borom jamono yamul foofu dee nee na sëriñ si bu ñuy def benn moom ñaar lay def ñaar listixaar ak seet mu ni ma maa ngi mbuur wooteel gaaw ci 76 611 33 nga jëm 78 578 68 40 bu fekkee Dakaaru Njaay nga jëm 77 199 93 Serigne Saliou Mbacke borom jurul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 d'accordul ca stratégie ba nga xamante ne ah, i di Ousmane Sonko daal dina koy jël bokk na ah, ca gàtt sa gàtt sa ba nga xamante ne moom la woote woon rek ak kañ nga xamante ne ah, ñoom ñoo fare ca pouvoir ba mu mel ni nag mbir ma dafa daal di mujj ëpp loxo ndax moom jamono ji mu mel ni daal dinay sax ñu daal di koy sax laay wax génne ca la nga xamante ne moom moo di candidat ya nga xamante ne ñoo war a jongante yile élection présidentielle waaye moom baax nag gannaaw bi le conférences de presse dellusiwaat na ci seenub ambition politique ak lépp loo loo xamante ni rek nar nañ ko ngir seen candidat boobu nga xamante ne moo di Khalifa Sall daal di leen rek teewal ca présidentielle yu 2024 naka noonu moom daal di nay rek dellusiwaat ci euh, conseil municipal ba nga xamante ne am nañ ko ca mairie bu Ndakaaru loolu nag yenn ci ay coppite yoo xamante ne daanaka andi nañ ko ci moom baxte nag mu daal di respecté parité ba nga xamante ne woote nañ ko rek ci bile mairie waral nag lépp luy bureau ak renouvellement rek ñu daal di koy def fata moom ma nga xamante ne moo di maire Ndakaaru mu daal cay ànd wax ci Ousmane Sonko ma nga xamante ne grève de la fin ba muy def mu nga koy gën a sonal rek gannaaw ba nga xamante ne ma dafa daal di menacé lool ci noonu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay partisan am ñu ngay sàkku rek ngir mu daal di dakkal bii les la faim naka noonu la ko defee kii di avocat am di Juan Branco mu ngi sàkku rek client am mu daal di dakkal bii les grève de la faim ndax kat wér gu yaramam dafa daal di menacé lool waaye nag mu mel ni moom Ousmane Sonko gannaaw ñaan ya nga xamante ne ñaan nañ ko kook appel yeeg message yeeg li ni mel mu mel ni moom Ousmane Sonko fas yéenewul rek dakkal bi les grèves de la faim daf koy daal di xeex rek ba lu ma ca am jël ci noonu nag ña nga xamante ne ñoom ñoo faree ca moom rek di sàkkuwaat bu baax a baax rek kii di Ousmane Sonko mu déggal leen rek ya nga xamante ne wala sax ñaan nga nga xamante ne ñu nga ko koy ñaan rek ngir mu daal di dakkal bi les grèves de la faim keneen ku état de santé am daal a menacé wu Cheikh Bara Ndiaye lay wuyoo moom nag nag gannaaw mu nekk en réanimation ndax grève de la faim ba nga xamante a mu nga ca nekk rek mu daal di doon loo xamante ni tamit wérgu yaramam daal di a doon lu doy waar santé am mu ngay dégradé wu rek a de la faim ba kana nga xamante ne noonu la woppee kii di procureur daal di nay gàntal rek liberté provisoire ba nga xamante ne ña koy layool daal di nañ koy ñaan nit dof tamit mu nga ca prison ba moom tamit nekk ca grève de la faim mu mel ni ñoom détenu yi ku ca nekk rek ak stratégie ba nga xamante ne noonu ngay xeexee moom nit dof nag mu nga rek wéyal grève de la ma gannaaw nag diir bu yàgg mu daal di koy nekk rek ca prison ba yenn ci ay liberté provisoire sax ña koy la ñaan nañ ko waaye ak kii di procureur daf leen ko gantal la waral nag ba ñoom ñuy wéyal seenu xeex rek nekk di amal grève de la faim réewum Niger la ñu daal di jëm la CEDEAO ordonne de sa force pour restaurer loolu nag gannaaw ba nga xamante ne defoon nañ sax ab rek ngir ñu daal di delluwaat pouvoir ba ak nga xamante ne moo nekkoon njiitu réew mi ñoom CEDEAO nag ñu daal di décider daal di intervenir rek militairement ca la nga xamante ne moom moo di réewum Niger waaye nag mu mel ni ñoom daal nañu rek ordonné la nga xamante ne moom moo di ab déploiement maanaam yenn ci ñoo xamante ni sax daanaka ay lañ rek ngir ñu daal di andiwaat ordre ba nga xamante ne moom moo war a am sax. foofa ca réew ma Niger ngir delluwaat pouvoir ba ka nga xamante ne moom moo nekkoon ca bopp réew ma. ci leneen la ñuy wax Wally Ballago Seck mu nga doon tudd doomam bu jigéen bile tour nag mu daal di koy jox waaye juróom bu jigéen di Mama Kiné Diouf Diaga mu daal di doon tur bu neex loolu ka nga xamante ne moom moo di waay juróom ba noppi yëkkati juróomi million daal di ko cay teg yenn nag ci ay a juddoo rek ca bile bés mu nekk ay témoignage yu am am solo gis nañ nag moom Wally Seck ak témoignage yu am am solo ya mu def rek ah, ci rakkam di Mouhamad ah, mu daal di doon ah, témoignage yu rafet lool waaye tamit ña nga xamante ne ñoom ñoo fare rek ak kii di Waly Balago Seck muy Amady Badiane daal di nay dellusiwaat rek ci kii di Ameth Thiou bokk na sax ca na mu jógee rek ca Ramadaan waaye moom Ameth mu mel ni dafa teeri rek ca Papa Diouf waaye kii di Amady Badiane nag mu wax naan kii di Ameth Thiou moom mooy Ramadaan Ramadaan mënut a dem sa Ameth Thiou Ameth Thiou naka noonu mu mel ni fii ki a jàmm dina dellusiwaat. xat ci diggante Ameth Thiou ak groupe bi di Ramdan Aïcha Koné bu seen petit gàllé moom la ñuy gis noonu rek très na bi mu daal di doon euh, ku am talent lool ci wàllu pop musique gannaaw euh, seen petit gàllé ba nga xamante ne euh, fa lañ ko daal di découvrir rek moom mu nga yeewee rek di am taxawaay bu baax a baax ci musique bi ndaam sax jeune la waaye nag mu doon koo xamante ni tamit avenir la ci wàllub musique rawatina fii ci Sénégal wax ci Vénus Ndour doom la ci Youssou Modou euh, moom nag euh, moo doon def rek enterrement de jeune fille ñu nga koy gis euh, mu ànd ci ak xaritam mu mel ni nag moom Vénus kii di baay ba daal dina koy may rek moom la ñu gis noonu rek ak mbégte ma nga xamante ne mu nga ci ànd rek ak i copinam ñuy dund bu a baax lii di anytime moom Vénus Ndour image nga xamante ne daal dina koy partager rek mu doon image yu rafet lool Mona bu série Virginie moom la ñu gis noonu rek très bien habillée daal di rek affiché wu ak ay nouvelle photo séduire bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di followers mi gis nañ nag moom raaroon na lool ci réseaux sociaux yi waaye nag génnaat na daal di publier ay nouvelle photo waax ci beneen artiste muy Mia Guissé jamono ji nag mu ngay wéy di amal ay tournée foofa ca diwaanu Europe gis nañu nag récemment photo yi nga xamante ne daal na koy partagé moom Mia Guissé mu doon artiste bu ñu ràññee fii ci Sénégal Lisa moom la ñu gis noonu rek très bien en envers moom Lissa daal di doon tamit ku amoon taxawaay bu a baax ci yenn ci ay série fii ci Sénégal waaye nag daal dinay toogoon sax ab diir ñu gëj koo gis lool mu mel ni teewaat na rek ci réseaux sociaux yi gis nañu récemment photo yi nga xamante ne di dina koy publier moom Mame Diarra ñu gën ko xam ci Lissa Adiouza daal dinay dellusiwaat rek ci lu nga xamante ne moom la daal di weesu muy dund bu métti boo xamante ni rek dundoon na ko moom ci ay kàddoom sax mu ngay defi confidence rek di wax naan dafa nekkoon rek ab maîtresse ñu daal di koy nax loolu nag mu nekk passé boo xamante ni métti na lool mu cee dellusiwaat sax di ko nettali waaye nag mu doon jaax-jaax boo xamante ni sax daanaka bokk na ci la nga xamante ne moom moo ko daal di yokk a gannaaw foire ya nga xamante a ñu nga koy organiser bi nag ñu duppeeku kaay jaay kii di Dabaye nekk soxna ci Armand Ndiaye doonoon rek ñenn ci ñooy exposé ci yile foire gannaaw réussite ba nga xamante am na ko ci foire ba daal na yëkkati rek lu toll ci un million daal di koy jox borom këram di Arma Ndiaye Ndeye Gueye gannaaw Mbaye Lambar daal di koy laaj rek ci teewaayu Ndeye Ndiaye Banaya ca groupe Ramdan moom nag la mu ca tontu lu simple la mu ngay wax kii di Mbaye Lambar naan ko yoonam nekkul ca la nga ne moo ngi ko koy laaj wax ci jaja ñu gën ko xam ci TikTok ba ak vidéo yi nga xamante ne mu nga koy def rek moom nag mu ngay dellusiwaat ci mariage am nga xamante ni sax daanaka am nga wax naan ba mu dese ñeenti fan ca la ñàkk waajuram bu jigéen mu daal di doon lu ko bu baax a baax ci TikTok bi. cool Amina Poté ak Kouthia gannaaw nag ba nga xamante ne kii di Poté dafa porté woon plainte rek jëm ci wàllub diffamation boo xamante ne mu nga tukki ci Samba Sine ñu gën ko xam ci Kouthia ba noppi rek moom Amina Poté mu doon sàkku sax ndàmpaay lu toll ci cent millions mu mel ni bile procès dàqaat nañ ko rek loolu nag mu jëm ci paiement consignation boo xamante rek mu ngi toll ci cinquante mille francs waral nag ñu daal di dàqaat bi les procès jàll ca Albert waaye mu nekk hôpital ba ñuy fajee rek xale ya mu mel ni ab opération réussie sax la ñuy wax ci ay sœurs siamoises mu mel ni daal nañuy réussir rek bile les opération gannaaw nag ba nga xamante ne ñaari xale dañoo daal di judd rek taqaloo ci lañ rek daal di réussir bi les opération rek daal di leen taqale wax ci ni sax dafa dal di jur doom rek bu am lu toll sax ci juróom benn weer ba noppi sànni ko ca ab teen mu daal di doon mbir mu doy am rek foofu ca mbëlëxe ci lool nag moom soxna si gannaaw yenn ci information mu mel ni sax moom xel mi taxu ko neex loolu moom waral nag mu daal di def sax jëf ji ni mel jël doomam ju lu toll ci juróom benn sànni ko ca teen ba màggal daaru xudus mel ni ñaar ñu jigéen lañ fa daal di jàpp rek gannaaw gannaaw ah, ña nga xamante ne ah, ñoom ñoo ñëwoon ci bile màggal mu mel ni ñaar ñooñu ah, mu mel ni ñaari soxna yi nag li ni mel la ñu daal di def rek ca màggal Daaru Xuddoos ba sàcc rek lu toll ci vingt téléphone wax ci wàllub tàggat yaram final coupe arabe mu mel ni Kalidou Koulibaly ak Sadio Mané ñoom ñooy daje gannaaw nag ba nga xamante ne ñaari doomu Sénégal yi dem nañ rek ca Arabie Saoudite ñoom ñaar ñëpp seen i équipe daal final rek ñu fas yéene daje muy Kalidou Koulibaly ak kii di Sadio Mané mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andi loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi talaal close notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf.